aller aux élections moo tax ñu defal coalition bu mel nii jël ku mel nii Barthélemy Dias teg ko ci kawam donc loolu tamit day firndeel ne que ces gens-là ne sont pas prêts vraiment pour se diriger sur euh, les jours électoraux alors pour revenir sur ta question tamit démb gis nañu le ministre des transport terrestres et ki nga xamante ne moom mooy El Malick Ndiaye euh, di wax sur euh, élection yi nga xamante ne ñi ngi si war a dem mm-hmm. dafa njëkkee sur euh, la gestion économique du pays moom mi nga xamante ne tey jii moo yot benn secteur bi il a parlé de quelques rapports wax na tamit yenn personnalité yi nga xamante ne ils doivent rendre compte à la justice mhm. wax na tamit tey ji euh, sur l'argent du contribuable qui a été détourné euh, par euh, des dirigeants ay acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci wàllu boobu mhm. donc loolu tamit day wane que tey jii ni transparence ak redevabilité bi nga xamante ne suñu autorités yi moom la ñuy woote ñi ngi nekk dans la continuité mhm. alors pour revenir tamit dans le champ politique yaa ngi ma wax est-ce que Pastef nekkul dans un terrain glissant. man je dirais non di naagu di naagu. parce que non amul naagu sax non ay dama leen di boole ba ñekk fukk ma boole leen dóor tamit c'est un peu extravagant quand même ci loo xam ni bon xëccoo la quand même on sait jamais qui va gagner. dans l'analyse politique. vas-y élection présidentielle yi nga xamante ne moom la ñu jógee. Mhm. dafa am une réalité politique qui a été empêchée de se présenter sur les élections muy Ousmane Sonko. Oui. Ousmane Sonko bi mu xamee ne que sa candidature va être mu dugal ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar fay mhm. campagne électorale bi bi mu tijjiwee mhm. ñoom ñaar ñi ngi nekkoon ñëpp en prison Mhm. quelques jours après si lañ leen libéré ñu rejoindre la campagne électorale mhm. euh, beaucoup d'analystes politiques ak euh, des spécialistes yi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllum élection mhm. nee nañu Ousmane Sonko su nekkoon candidat c'est sur que il allait gagner les élections sur un pourcentage qui dépasse largement les 60 pour cent ñi ngi fàttaliku ci ginnaaw tuuti première sortie bi nga xamante ne jot nañ ko def Euh, quand le premier ministre et le président de la république ont tenu un point de presse fële nga xamante ne moom mooy Azalaï ñi nekkoon ci biir salle bi dañu nekkoon di wax un pourcentage sur les quatre-vingt-cinq pour cent mhm. Ousmane Sonko ne attention bu ñu yaakaar ne que on va gagner avec ce score là parce qu'on a face de nous un état mhm. dinañu mettre en place des mécanismes yi nga xamante ne pour pour détourner une certaine partie des votes mhm. mais li woor ba wóor on va se retrouver avec un pourcentage entre cinquante cinq pour cent jëm kaw tu étais dans la salle maa ngi woon ci biir salle bi mu nekkoon ay diir yoo xamante ne dans l'analyse sur les chiffres mhm. Ousmane Sonko a eu à faire benn appréciation bu ndaw ma yàgg di la wax di la ko répété waat dans les grandes démocraties à chaque fois su élection présidentielle amee élection yu top topp le pouvoir dafay euh, consolider seen pourcentage ça s'est passé avec euh, le président Senghor ça s'est passé avec euh, Abdou Diouf euh, Abdoulaye Wade bi mu ñëwee dafa nekk dans la continuité il la même dépassé le chiffres yi nga xamante ne moom la jotee woon gagné la présidentielle avec le président Sall ça s'est passé la même chose donc ñun tamit dañuy jàpp ne que cette logique politique va continuer et léegi dafa amaat beneen facteur déterminant muy lan muy la présence de Ousmane Sonko mm. sur ces élections là dafa am ay élections rommoon na bokk ci woon et pourtant def na des orientations sur le jeu politique sur la stratégie politique sur les débats de la science politique il a réussi à implanter ba tey jii mu am gain de cause mu jëlaat beneen tournure mooy lan il sera présent sur ces élections bien vrai que il reste le premier ministre après nag ñoom su ñu amee la majorité ñun ñëpp xam nañ ne que il va pas euh, bon il va pas être euh, euh, benn représentant ci biir hémicycle bi mais par contre il aura diir ak ay orientation yoo xamante ne il va le faire alors El Malick ne ñun li ñu gënal sax mooy opposition yëpp boole ñu daje ak ñoom pour aller beaucoup plus loin nee na sax ñaari fiche moo waroon am bu Pastef ak opposition bi ndax ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi ci langum politique bi mm-hmm. ñi ngi ci beneen côté bi je vais pas dire que actuellement ya un duel entre le système et système mais par contre aujourd'hui il y a Pastef qui fait face à une autre orientation en termes de représentatif populaire dafa ñun xam nañu exactement seen électorat fan la toll et comme je te l'ai dit bërki euh, hier tamit le professeur Abdoulaye Mbow Aar a insisté que ne am na ay dirigeants yoo xamante ne avant élection di ñëw dinañu def li nga xamante ne moom mooy des analyses pour xam exactement balance bi ci ban côté moom lay penché wu way mhm. aujourd'hui il y la réalité politique am na la réalité du terrain yow mii bokkoon ci élection présidentielle bi ànd nga ak ay candidats battre campagne xam nga ku nekk en terme de représentatif lan mooy ce poids donc kenn naatablewul dans le champ politique c'est Ousmane Sonko ci a le plus grand électorat ci langum politique loolu c'est la réalité donc c'est sur ces bases là sur cette logique si la El Malick sukkandiku ne kat ñun élection yi nga xamante ne si la ñuy dem kenn du ko naatable avec une certaine confiance et de la hauteur ne ñun ñooy am la majorité à l'Assemblée mm. gars yi commencé nañu wax sax dinañ am temps ci ñi nga xamante ne ñoom ñuy représenté ci biir hémicycle bi mais je peux vous assurer que nous allons dépasser sax li nga xamante ne moom la ñuy wax moo lay wan ne que si on se base seulement dans la logique politique dañuy jàpp ni que Pastef sera dans la continuité léegi nag mu am un duel dans le champ politique am na li nga xamante ne moom mooy lan des discours que nga nekk candidat que man ma nekk candidat am na ay stratégie yoo xamante ne ñun ñëpp ñoo koy appliquer est-ce que yaa ngi donc looloo tax tey jii El Malick ne li ñu gënal sax mooy ñëpp ñu boole leen match bi jeex benn yoon donc sénégalais yi tamit ñoom am nañu seen mots yi nga xamante ne euh, ça va compter sur ces joutes parce que c'est eux qui feront le choix malgré les dires yi nga xamante ne les différents acteurs politiques ñi ngi koy wax jëmale ko sur les législatives. D'accord alors dama jàpp ne mbir match amical la rek ñëw teg joueurs yi nga am jàppante tuuti mu jeex nga dóor ñibbi loolu la fa parce que daa di carrément que dañ di boole ba ne pour ñu dóor jël assemblée nationale bi est que tey du naagu wala jàpp nga ni bon gëm sa bopp la tout ça. Euh, d' il faut il faut reconnaître que en matière politique El Malick Ndiaye c' est un très bon communicant. quand même absolument oui c' est pourquoi d' ailleurs même. ça c' ce qui justifie mu nekk ci ci ci bopp loolu ñi dénk communication bu parti bi di Pastef mm. euh, il communique très bien mm. et ça c'était une conférence de presse politique il y a la c'était c'était une communication politique aussi une, une façon de dire mm-hmm. euh, booy dem ci ci ci làmb na wax dëgg yàlla te amul confiance moom bay boo toog quoi bañ a sonal say mbokk ci pression bu metti nga toog ñoo xam ne kii demul xam nga ñoom dañoo jàkkaarloog ñoo xam ne sax nag euh, ci élection présidentielle yi ñu génn mm. pur ak seen candidat ñu ngi am deux virgule huit pour cent hmm. Khalifa Sall am un virgule cinquante sept pour cent hmm. Anta Babacar Ngom zéro virgule trente quatre Déthié Fall zéro virgule trente cinq Pape Djibril Fall am zéro virgule quarante et un boo ko boolee xam lu mu lay jox Bachir hmm. cinq virgule quarante sept pour cent ñu ngi lim ñëpp ñu nekk ci liste boobu noonu nga jàpp na ñooy ténor boo leen boolee li ñu am ci présidentielle yi génn cinq virgule quarante sept la te kenn gañuwul Bougane moo ci des moom demuloon élection moom deuxième tour la doon xaar <laughs> xëy na bii nekk deuxième touram ak euh, euh, kooku nga xam ne mooy Thierno Bocoum mm-hmm. moom moom mouvement bi wax dëgg fi yàlla man moom kese laa ci xam mosuma daje ku bokk ci mouvement Agir léegi ñooñu nga yokk ci ci bi geneen wàll ñu jàkkaarloo ak euh, coalition mm-hmm. jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba takk wàllu Sénégal bi nga xam ne Macky Sall moo ko jiite ñoom ñaar ñooñu ñoo àndoon ci présidentielles ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo am 34 pour cent. Mhm. tey 34 pour cent yi dañ koy dagg kii aw fii ki aw fii. te loolu yaakaar naa ñi nekk ci régime bi lay gën a arrangé. Mhm. parce que raw gaadu la de. bu dajee lañ amoon di dem ñii lañ amoon doon leen bëgg a jege ñu far ko xaajoo ki aw ni kaw nii ñoom lay ñoom lay ñoom lay gën a arrangé. kon jàpp naa ne euh, El Malick euh, li mu wax gis nga bu fekkoontoon ne Pastef euh, dafa naagu ci élection yi. Ah. li la maama di wax léegi. Ousmane Sonko ci boppam du ñëw di pour diriger cette liste là. Hmm. ça veut tout ça veut tout dire. Hmm. ils prennent très au sérieux ces élections la parce que bu ñu dissoudre assemblée nationale c'est pour un seul objectif. Hmm. muy fexe am li nga xam ne mooy majorité une majorité assise ci assemblée nationale pour que lépp lu ñu bëgg a def au minimum ñu am plus de trois cinquièmes de députés pour nga xamante ni yenn projet de loi yi. nombre bi ñuy soxla pour mu jàll dinañu ko mën a am donc loolu duñu ko duñu am objectif bu ñu melo près di caaxaane ces élections la et cela se justifie par la présence de Ousmane Sonko bi ñëw pour diriger la liste national daal sax nga gis seen daanaka boo xool seen teneeru parti bi ñëpp dañu leen yóbbu ci département yi mhm. ñu dem ñu dem lutter pour que gis naa loolu oui euh, liste nationale bi mhm. Ousmane ko diriger ko ñu mën a jël ñeneen dugal leen ci ok boo xoolee ci seen coalition ñu bari ci liste nationale bi lañ leen dugal. Mhm. donc les départements Pastef da ko jox surtout ténor yi parce que ñoom xam nañu base bi nga xam ne am nañu ko ba pare. parce que ñu jël seen i nag euh, euh, seen i seen i alliés yu bari ci seen coalition dugal leen ci li nga xamante ni euh, mooy mooy mooy liste nationale bi. Euh, je pense que ni euh, ci ni ñu nekkee ni peut-être ñu bëri ñu ngi jàpp ne ñoom euh, dañoo dañoo dañoo confiant de trop jàpp ne les élections sont sont gagnées d'avance mm-hmm. mais man je ne vois la chose ainsi je vois que ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey bu baax a baax a baax ci suuf am na mm-hmm. ñu ma si jot a xam di déggante ñoom Eh, jamono ji yent luñ nelawuñu mm-hmm. ñu ngi ñu ngi sur le terrain di di liggéey démb rek am na koo xam ne maa ngi ci doon déggante ak moom pour jéem koo jéem koo invité fii ñu am na waxtaan mu bokk ci ses alliés sax bokk ci Pastef mm-hmm. eh, mu bokk ci ci lycée national bi docteur Assane Ka eh, je pense que ne peut-être d'ici la fin de semaine sax mën na am ñu ñu mën ko am fii ci DK 221 mais je vois que ne daal mm-hmm. euh, simplement la présence de Ousmane Sonko justifie que ñii jël nañ les élections très au sérieux parce que nous tous nous savons que ne Ousmane Sonko mënul nekk assemblée nationale nekk ministre. donc euh, et peut-être peut-être euh, bu fekkente ne dem na assemblée nationale man je ne pense pas. Euh, muy muy woy di nekk foofu en tant que député parce que. Mhm. dina xaw a indi tuuti peut-être distance ci liggéey bi parce que bu fa nekkee beneen calendrier lay doo boo xam ne du jege le pouvoir exécutif trop ni mu doon man chaque conseil des ministres mu toog ak le président au delà de tout ça nekk euh, euh, mën a dem président di maanaam jege bi amoon ci digganteem ak président de la république ci liggéey bi mm. en tant que premier ministre bu nekk assemblée euh, te est-ce que ki ko fay wuutu it aussi dina mën a dina mën a mel noonu je pense pas donc ce qui fait que ma jàpp ne hmm. bu nekkee ci liste bi c'est juste parce que élection bi ko jar mu ñëw diriger la liste pour yóbbu ko tirer ko mu dem assemblée nationale après moom mu ñëw continuer nga xam ne mooy mooy mooy liggéeyam loolu loolu daal laa laa jàpp je pense que ne l'avenir nous dira incha allah yàlla rek moo xam. Hmm. lan mooy xew ci biir conférence bu ba tey gis nañ El Hadj Malick beneen kàddoom muy xamle que ni jógee on va vers l'installation d'une haute cour cour pour nga topp ko d' abord haute trahison nga mën a toppee Sénégal loolu la texte yi wax également pour nga mën moo ko loolu c' est une bonne nouvelle pour réparer préjudice bi nga xam ni douze am na ci douze ans yi passé ci nguuru président Sall. une très bonne nouvelle parce que loolu quoi qu'on puisse dire même ñoom bu ñu ko waxul it askanu Sénégal yëpp normalement war nañu war nañu koo xam. Mm-hmm. parce que le président de la république ak euh, sunu constitution. Mhm. Euh, mënoo ko topp loolu haute trahison je pense c'est l'article 101 de la de la constitution mooy lu nu mel. Mhm. Euh, ce qui fait que assemblée nationale nga mën a jaar. Mhm. pour def une mise en accusation jëm ci moom. ñu dara dara installer une commission boo xam ne xëy na peut-être moo koy moo koy topp. mais loolu pour nga am ko dafa am benn nombre député boo xam ne tamit moom ngay soxla alors ñoom bu ñu demee ci élection bu ñu amee majorité bi ñu bëgg dinañu ko mën a def. mais au-delà du président Macky Sall aussi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ses collaborateurs euh, ñi bokkoon ci régime bi surtout les ministres et donc ñoom it assemblée nationale di nga mën a di nga mën a installer li nga xam ne mooy haute cour de justice pour mën leen mën leen topp je pense que ne ñoom dañoo warloo ak askanu Sénégal quand même loolu euh, dañoo warloo askan wi loolu ndax dafa dafa am loo xamante ni dafi jaar mm-hmm. ñu bëri ñoo xamante nii tey